nit mooy kan mu ne nit mooy ndundat loo xam ne nii day def politique mooy nit mooy animal politique mooy ne dafa mel ne yàlla ni mu ñu bindee daf ñoo mooñaale ñiy doxe doxinu politique nga xam ne nii xaaj lay doon ci sunu borom ni bindee doomu adama nga xam ni ki nga xam ne yàlla daf ñoo mooñaale ñuy lekk di naan ak yeneen melokaan yoo xam dañ koy judduwaale daf ñoo mooñaale tam yëg-yëgu politique boobu di nekk sunu biir nga xam day mel ne nit ñaari duñ du ko def dana jafe lool te ku ne xam na ne ci politique ci baat bi buñ ko déggee mooy luy yéwénal dundiinu askan wi lépp loo xam mooy tax askan yu mën a dund ci jàmm yéwén loolu day dugg ci biir politique. waaye itam réew wala état nu koy saytoo ba mu tegu ci yoon wala mbooloo mu manti doon nañ koy saytoo ba mu tegu ci yoon loolu dafay dugg ci politique état nag ku nekk xam na. ñe delluwaay yi ñu wax ne moom moo ko sos xam nañ ko mooy mbir la moo xam ne nii ñun ñëpp ko bokk buñ ne état ana état dañaan mooy man mooy yow mooy kële ak ñun ñëpp buñ dajaloo ñun ñooy état bokk ko bokk nag lu ñëpp bokk nag lu ne ku ne nga ca bokk ñu ko ci bokk moo tax ku nekk ñun am nga sañ-sañu feeñal ci sa gis-gis am nga sañ-sañu tam wax sa déggin ak sa gis-gis ci mbir yi niñ koy doxal ak niñ koy saytoo ndax la ko waral mooy ne bañ koy sos ku nekk ñun da ngaa jëloon say àq ngaa cof ci say àq ak say yelleef ak say sañ-sañ ak say moomeel ñu jël lépp boole ko jox ko menn mbooloo wala kenn nit ne ko saytul ñu wuutuñu ci saytu gi mooy doxalal ñu bokk bokk na nga xam ne ku nekk sa mbir a ngi ci biir moo tax ku nekk am nga sañ-sañu feeñal ci sa kàddu ak sa gis-gis ci mbir mi ni muy doxe kon dañaan politique buñ ko xam ne dañ ne mooy mbooloo mu nekk wala système bu nekk wala askan wu nekk nañuy fexe ba séddale force ya fa nekk maanaam ku nekk jeexital gi nga am ci biir mbooloo ma nañ koy nose ba ku nekk xam ne fii nga ca tàmbalee fii nga ca yam bii moo la ca war lii waru la ca loolu mooy politique mooy baat bi defe naa nag lu amee solo noonu na ci biir mbooloo ci biir doxalinu mbooloo mi kenn amul sañ-sañu jéem cee génn kenn ne ko bokkoo ci te kuñ ci bëgg génn it da ngaa war a bañ ndax da bokk ca la ko sos moo tax mbooloo moo dem askan woo def la ko composé ci ay waaso composé ko ci ay groupe yoo xam dañoo ne ci biir rawatina ndaw ñi xale yi waxambaane ku nekk ci ñooñu war ngaa dugal waxuñ da ngaa am yelleef da ngaa war war tef la ci yow nga dugal sa xalaat sa gis-gis ca mbir ma nañ koy doxale waaye nag ku ne xam na ne théorie ak pratique dañoo yàgg wuute lépp loo gis théorie bi ak pratique bi dañuy wuute léeg-léeg moo tax baatu politique ñu théoriser ko noonu te mooy wax ko ci xam-xam rek nañ koy déggee ci xalaat xalaat day wuute lool ak nit ñi nañ koy pratiquer ak niñ koy doxale moo tax lu baree bari ci doxalin ni ñuy yëngatu ci wàllu politique ñoom ñoo dem ba yàq baat bi li ñuy wax dañ ko diaboliser maanaam dañ ko saytana maanaam dañ ko def baat boo xam ne nii yàq ko yàq yàq ba fuñ ko tuddee rek boroom gis-gis yu baax yépp dun ko rafet rafetlu dégg gi duñ ko lu ci ñoom. ñu dem ba politique baatu politique ñu lënkale ko ak wor dañuy wax ne ku jàpp ne ku la dàq wor daal moo la gën a nekk politicien ba politicien bu waree sax dañaan loolu di garaaw ndax moom diw moom politique lay def wax lu dul dëgg nar ñu dem ba jàpp ne politique mooy. ngay wax wax tey bu subaa ngi wax leneen lu wuteeg la nga waxoon saagaante xastante ŋàññante loolu ñu bari dem ba gis ne loolu mooy politique loolu nag sore naag baat bi ci cosaan léegi sax weesu nañ ci jokkalante lu ñaaw waaye dañuy jëfandikoo ay crime ay yoo xam ne ni tooñ yi jéggi dayoo rey nit ñoo xam seen yoon newu ci jàpp ay nit yoo xam seen defuñ dara ñu tëj leen loolu lépp ñu koy def ngir di turu politique te boo maanaam yoonu politique nekkul ca loola kon baatu politique moom ñu jàpp ne ci cosaan baat la bu baax te ñu jàpp ne daf bokk ci ni ñu yàlla mooñe ñu koy doxe loola ku nekk mënoo ci amuti bu nu déggee nag nekkin woowu nag ci diggante pratique bi ak théorie bi ci la ñuy mën a jànge réalité politique bu Sénégal ci jamono ji ñu toll nii yaakaar naa loolu ñu ñëpp mën nañ cee maase ku xool sunum réew ni mu tëddee ci wàllu politique jamono yi mënta ñàkk bu fekkente ne yow koo xam tuuti ci noblesse mi ngi ci yow maanaam tuuti yëg-yëg jikko yu baax ak melokaan yu baax mi ngi ci yow dafay mel ne doo mën a rafetlu ni ñuy pratiquer politique ci sunum réew ndax ñi koy def ci réew mi ci gën cee fës dañoo soppi déggin wi di ko jëfe ci façon boo xam ne nii naan maanaam du neex wala boo koo xam ne nii ak mbaax ak nga jodoo ko rafetlu tey boo xoolee tey sunu politiciens yi nga xam ne moom lañ xam ñu siiw daanaka amu ci ko am méthode bu bu leer méthodologie bu leer boo xam ci ngay dox ñu xam ne fii nga tàmbalee fii nga jëm bariwu ci ñëpp ñoom daanaka xeetu làmbut rek la ñuy def moo tax bu teyee dañuy ne fii bu ñu ne fële bu nga seetlu leen fële maanaam amu ci kenn koo xam ne mën ngaa fuglu mën ngaa tawax ko mën ngaa lu maanaam ne ëllëg bu ma ko xoolee fii laa koy fekk mën na laa signaler jàdd na jog mu jàdd càmmoñ kon amuñu méthode bu leer naññi boo xam ci la ñuy dox ñu bari ñoom amuñu idéologie idéologie mooy lii lal xalaat bi lal politique xalaat bi lal doxalinu politicien bi loolu mooy idéologie parti politique boo gis xalaat ya ko lal loolu mooy idéologie ñu bari ñoom fi ne tey boo leen ne woon lan mooy si idéologie dañ lay reetaan dañ naan la idéologie amatul léegi ndax amuñ ko amul dañ ko amul moo tax ñàkk giñ ko ñàkk moo tax ñu bëgg laa woon ne la képp kuy waxtaanee affaire idéologie yow da ngaa tardé ndax loolu jamono daf ko wees te moo ne parti politique mënta ñàkk idéologie idéologie mooy lii lal xalaat xalaat maanaam doxalin mu nekk la koy lal loolu mooy idéologie ndax dañuy gis ne nit seen doxin yëpp boo xoolee doxin boo gis am na lu ko laal ci xalaat xalaat bu ko laal xalaat ba ko laal nag moom mooy idéologie ñu bari ñu ngi def politique léegi boo leen laajoon idéologie duñ la wax benn idéologie bu leer nañ bu ñuy dox. ñu bari ñoom amuñu projet de société boo xam ne nii dañ laan la ñun bu ñu yoree réew mi lii mooy suñu programme ëllëg ak sibir fii ak fii ak fii dañ ko def fii ak fii la ñuy jëmee mbooloo mi ñu baree bari ñoom amuñ ko am ñu leer nañ boo xam dañ la ko mën a leeral bari na sax nag ci ñoom ñoo xam ne nii dañ leen ay politiciens boo leen laajoon sëñ bi lan mooy baatu politique duñ la tontu mënuñu koo xam ndax amuñ ci xam-xam ba kon daal ñoom jàpp nañu moom dem ak dikk ak wax ak wax ju ñaaw yu mel noonu rek moom mooy politique. kon réalité bi nag loolu mooy li ñu doon ndax loolu kon dafay teg tegtale ne kon léegi ñun danoo war a bàyyi politique complètement bàyyi leen ko ñoom comme ñun mënuñoo doxee noonu ndax dañ koy bàyyee déedéet bàyyee gi kenn waru ko def li am solo kay mooy nu ñuy fexe ba. xoolaat tëggaat formulé waat doxalinu politique ci sunum réew ba mu gën a dëppoog baat bi ci cosaan ñu koy doxe waaye bàyyee gi ay nit moom ñu koy doxal na la neex du xel ndax loolu système la boo xam ne nii àddina mooy doxe noonu maanaam misaal mi ñu ci mën a joxe mu xaw a gën a leer tuuti dañuy nett am benn waay boo xam ne nii daa bëggutoon a bokk kenn aw ñam maanaam nit ku siis koo xam ne nii moom bëggut a bokk kenn ak lekk buñ masaanteeg bool bu nit ñëpp ñëwee sukk day jékki-jékki mën naa xaaxtandiku def la ci bool bi wala daal mu def xaw a loo xam ne nii xel yi dañ ko rafet rafetlu boo ko defee ñëpp daal di jóg moom mu wéet ak bool ba moom dong desee bool bi système boobu dañ koy doxe ci nitu politique dañ koy doxe mooy lan mooy xam nañu fii am na fi borom yi xam-xam am na fi ay nitu diine am na fi ay kili yoo xam dañoo jub xocc baax lool te mën naa am bu ñu waxee nit ñi dañ leen déglu ñooñu nag bu ñu ñoom géewu politique bi ñoom ñuy wax lu baax mën naa am ñu këf nit ñi ci ñoom kon nañuy def ñu ne kon nañu salteel baat bi tilimal ko taqal ko ba ñee seexlu ko kenn dootu ko jë kenn dootu ko soxla ñoom bu ko def ñun ñu wéete ko loolu nag moo xew ci suñu diggante nit ñu baax ñu ne ci réew mi ak ñiy dox ci politique. tey kilifa diine dañu kilifa diine du politique wala ñu ne borom xam-xam du politique wala ñu ne daal nit ku baax daal politique daal du mbirum nit ñi baax ñi ñu bàyyi leen loolu nag defe naa ne am na lu baree bari lu jir mooy ne dañu leen a bàyyee géew bi ñoom ñu ne fa def leen neex ñu toog di seetaan mooy ne la ñuy def lépp bu ñu noppee suñ kaw lay këppuwaat ñi toog di leen seetaan suñ kaw lay këppuwaat kon dafa jot sëkk nag ñu xam ne baatu politique du paat bu bu bu bu ñuy bañ baat la bu baax ci cosaan te sax suñu daf ñu ko mooñaale tey suñu diine daf ñu ca soññ njàngale mag ñu baax ñu ñu waxtaan sax daf ñu ci soññ waaye nag ñëw bàyyee nit ñi ñu cay def leen neex te buñ ca jëlee lañ cey def muy këpp suñu kaw ñu toog di seetaan moo tax bokk na ci li nga xam ne nii nag sunu nitu politique yi sunum réew dugal nañ ko ci politique te bokk ci woon ci cosaan mooy baatub xiis baatub violence boobu nga xam ne ni moom lañuy ñuy bëgg dañ cee dugal jëfandikoo doole ngir mën a am àgg fa nga jëm ndax léeg-léeg dañuy tegtaloo benn wax joo xam ne nii kenn ci gëstukat yu mag yi moo ko waxoon te mooy ne fa nga jëm moo lay layal jumtukaay bi ngay jëfandikoo ba àgg fa nga jëm ñoom ñu bëgg wax ne kon man de gannaaw ba nguur gi rek moom laa bëgg a jot pouvoir bi laa bëgg a jot kon lu ma mën a jëfandikoo ba àgg ca baax su fekkee ay rey su fekkee damay tëj su fekkee damay duma su fekkee damay yàq waaye daal li am solo mooy fa ma jëm naa fa àgg loolu nag dañoo yàq dégginu waxin jooje ndax ku nekk xam na ne eh, su may jóg bala maa jóg war naa wax man fële laa bëgg a dem kon fële laa bëgg dem nag. su fekkente ne fu baax laa wax ne fa laa bëgg a dem ab safaan mënuma koo waruma ko mën a jëfandikoo ngir bëgg fa àgg ngir bëgg àgg fu baax fa ma jëm kon ku taxaw sa kanam di jëfandikoo politique balaa nga koo déglu war ngaa am laaj yoo ko laaj laaj ko lan mooy sa idéologie maanaam say xalaat lan moo ko lal ban projet de maanaam ban xeetu askan nga ñu bëgg a indil ci tontu jim lay tontu nag ci ngay xamee moom fan la bëgg a jëm dëgg dëgg dëgg ci ngay xam itam kii tuddoo politique taxaw sa kanam ban façon nit la ndax mënuñoo jàpp ne ki nga xam ne nii dana man day ëllëg dama bëgg a yóbbu askan wi foo xam moo gën a baax ci ñoom lu gën a tegu ci yoon maandu te am ku nekk lay sax ak sa yelleef nga jot ca wax wax ju baax ju bu rafet ba noppi nga gis ne moom fa mu jëm fa mu àgg fa mu bëgg a jëm jaral na ko tey mu jaar ci kaw bopp bi boroom xam-xam yeeg boroom xalaatkat yeeg boroom gis-gis yu baax yépp mu nappaaje leen def leen ay néew jaar si seen kaw jàll ngir mën a àgg fa jëm kooku bu la ne fu baax laa bëgg a jëm la muy wax ma des na caa xoolaat loolu moom defe naa ne kenn xel mu rafet mënu ko nangu bu baax laa bëgg dem ba noppi def lu mel noonu ndax dañuy wax ne lu baax moom séentu asamaan jërul xëccoo lu baax yaatu na yaatuwaay boo xam ne nii ku nekk mën nga cee bay sa waar te day mat te kenn du bu xadal sa morom kon ñaari xëccoo bu amee ci géew bi rek xamal ay intérêt moo dugg intérêt nag duggee léeg-léegi lu baax mën naa fàddu kon violence bokk na ci li ko jur maanaam xiis politique bi bokk na ko jur yu mel noonu xëy na nag bu ñu xamee lan mooy violence politique lan mooy xiis politique lan mooy jëfandikoo doole ci politique. bu ñu nee violence politique mooy bépp doole joo xam da nga koy jëfandikoo ngir mën a àgg ci say objectif yi nga xam moom nga doon ba ngay dem loolu mën nañ caa déggee violence bi nga xam ne réew dana ko jëfandikoo ci meneen réew ci kaw meneen réew ñu koy tudde guerre. léeg-léegi réew dana dal ci meneen réew ngir ay objectif objectif politique boo xoolee tey bu dalee ci kaw Ukraine objectif politique moo da moo tax mu dal ci kawam kon loola violence politique day dugg ca biir léeg-léeg itam ñu mën koo tudde doole ji nga xam ne nii yenn acteurs yi ci biir te sax mën naa am yorewuñ nguur gi danañ koy jëfandikoo ngir mën a not nit ñi lu mel ne léeg-léeg li xew ci xeet yi nga xam ne maanaam force de sécurité yi lu mel ne police ak yu mel noonu léeg-léegi dérapage yi am seen biir nga xam dañuy jëfandikoo doole ngir yenn yi wala sax ñu àgg ci rey mbooloo mu bari bari ngir yenn yi loolu itam léeg-léeg dafay dugg ci biir violence politique. léeg-léeg tam mu nekk violence boo xam ne nii gouvernement bi du ko jëfandikoo waaye ay mbooloo ay acteurs politiques yoo xam ne activiste wala yu mel ni yoo xam dañu ne ci biir géew bi te ñoom bokkuñ ci nguur gi léeg dañ koy jëfandikoo ngir wañ loxo nguur dañ ci lu mel ne mbooloo mi jékki-jékki fetteeru fetteeru nguur ga fa nekk ngir soppi ko par force boo xoolee tey la xawoon Sri bu yàggul lu mel noonu la mbooloo mu jékki-jékki dagg rek dafa ndiiraan am ñu leen jiite ñu daal di jawwali fa président ba nekk daal koy delloo maanaam jëlee ko fa ci par loolu dana ci violence politique ci lay dugg wala li ñu tuddee amaali saxab mooy yi am ci euh, yenn mbir yi maanaam mooy mooy mooy nit ñi yàq di foq ci alal jàmbur yi lu ñu romb yàq ko bu ñu rombee oto toj ko bu ñu rombee kaar bu ñëpp bokk ñu toj ko yooyu léeg-léegi nit ñi dañ koy jëfandikoo ngir àgg ci seen objectif politique day dugg ci violence mën na caa dugg ci biir violence politique. wala sax nag ne li ma waxoon léegi nit ñi dem ba àgg ci wees foofu fépp nag dem jawali ka jiite réew ma daal koy wàccee fa mu nekk loolu tam ci forme violence politique ci lay dugg léeg tam nga gis nguur goo xam ne nii ay jafe-jafe am ci biir askan wi. mu war cee jël ay matukaay te jëlu ko ci misaal tey ñu ne dund gi seer na lool xiif a ngi yoot askan wi nguur ga war a jël ay matukaay te jëlu ko ba bàyyi nit ñi bañ dugg ci tuum googe googee mën nañ ko dugal ci biir violence politique. wala sax ci biir réew mi am na ci gox boo xam ne nii ay meññeeti suufa ma man fa maanaam yu baree bari mi ci biir suuf si ay ressources yu baree bari am na fa yu ñu war a mën a génnee ci biir suuf si ñu ko fay génnee ba noppi ña dëkk ca suuf sa cosaanoo fa ñoom. duñ ca jariñoo dara ñeneen maanaam ñu ko yóbbu feneen ñeneen di ko jariñoo loolu mën nañ ko dugal ci biir ba tey ci biir violence politique ñu ko yenn gëstukat yi di waxe léeg-léegi nag violence politique boobu nag léeg-léegi dafay nekk ci diggante ñaari groupe yoo xam ne ni seeni kàttan du tolloo seeni xeex du tolloo maanaam seeni doole du tolloo moo tax léeg-léegi du nekk jàmmaarloo direct li jëpp du ko nekk waaye dañuy jëfandikoo yeneen forme yoo xam ne ni moom xeetu jàmbaar lañ lu mel ne terrorisme bi ñu jëfandikoo nii nga gis nii léeg-léeg nit bett aw mbooloo dugg ci seen biir def fa jëfandikoo fa doole ñu tuddee ko terroriste maanaam terrorisme loolu day maanaam parce que ñaari mbir yi dañoo mënta jàmbaarloo wóoru la ne kii boo jàkkaarloo moom moo la ëpp ay moyens fuuf da faagaagal léegi dangay bàyyi bañ toog nga bett leen def la ngay def daal di dawaat wala sax li ñu tuddee guérilla guérilla mooy xeex boo xam ne nii ñaare ñi koy def doo leen xàmmee ci biir askan wi mën nañu ànd ak yow di waxtaan léegi ñu dem fii ci guddi gi léegi ñu dem sol beneen del mel neneen ñëw dal ci kaw biir mbooloo mi yàq fa lu bare bare rey mbooloo bu ñu xëyee solaat seen tenue civile mel ne ñu bokk ci biir nit ñi loolu la koy war a andi léeg-léeg looñu te guérilla mooy xam nañ ñoom mënuñoo jàkkaar jàmmarloog li ñuy xeex bu ko defee ñuy defee doxin wu mel noonu kon ñaare du doon violence boo xam ne ni ñu koy jëf dañuy jàmmarloo direct léeg-léeg léeg-léeg itam mu doon attaque yoo xam ne nii dañuy attaque objectif civil maanaam nit ñoo xam seen yoon néew li ñu ahdaaf madaniya maanaam ñoo xam seen yoon newut ci yëf yi ñëw attaqué leen wala sax ñu ñëw rey ay nit ñoo xam ne ñoom seen yoon newut ci yëf wala ñu yàq loo xam ne alal joo xam ne nii ñëpp ko bokk te yoonam newu yàq ko loolu dana ciy feeñ léeg-léeg itam mu doon violence boo xam ne nii dañ koy jëmale ci benn catégorie ay doomu aadama tànn menn mbooloo ci biir nit ñi daal ciblé leen maanaam nga xam ne ñuy jëf ci ay xeex doole jëpp ñoom lañ ko jëmale di leen rey di leen faagaagal te boo demee réew mel ne Burkina Faso ci misaal la fi am fan yi nga xam ne dañuy dugg ci benn dëkk rek faagaagal mbooloo man ndax ne mën naa am ay mën naa am duñu ay jullit wala man almuhim ñoo xam la tax ñu koy def léeg-léeg ñu waaye daal am na ñu jublu ñoo xam daal ñoom la ñuy leen rey boo demee Mali gi ñu gën a jege lu mel noonu dafay am léeg-léeg nga gis ñu jékki-jékki dugg benn dëkk taal dëkk ba rey fa kon am na ñu ciblé ñoo xam ñoom la ñuy jëfandikoo ñooñu ñuy jublu nag mën naa nekk ci wàllu diine wala mu nekk ci wàllu xeet wala sax nag mu nekk ci wàllu pas-pas idéologique boo xam ne nii dañ koy wuute kon loolu tam dana feeñ ci biir violence politique wala mu doon sax benn benn yoo xam dañ leen di setti dañ leen di seppi moom ci biir mbooloo mi di leen cible di leen rey boo demee réew mel ne Liban loolu bari na lu am lool leader politique yi ñu fay faagaagal wala sax biir Irak wala yu mel ne réew yi nga xam ne nii am na yenn benn benn leader yoo xam ñoom la ñuy cible di leen sepp ci biir mbooloo mi di leen rey loolu lépp day dugg ci biir violence politique kon violence politique lu tasaaroo la ci biir adduna bi noonu tam nag lay tasaaroo ci biir réew yi suñu réew it ñu ngi ci yoon woo xam ne nii defe naa ne buñ ci def jotaay yu mel nii di ci waxtaan di ci yeetante mën na noo dem ba mu àgg ci barab yu mel nii ndax defe naa ne koo gis événement yi fi amoon euh, ab am maanaam maanaam alerte la boo xam ne ñu war nañ ci jàng lu bëree te xam ne buñ jëlul matukaay yi defe naa ne am na yeneen yu mën a ñëw bokk na ci matukaay yi ñu war a jël nag mooy ñu xam lan mooy sabab lan mooy indi violence politique lan moo koy sabab ak lan lañ jàpp ne mën na cee nekk comme solution defe naa ne bu ñu ko xamee loolu tam danañu dimbule ci mbir mi kon am na lu koy sabab rawat na ci xale yi nga xam ñoom lañu gën a waxtaane tey buñ demee ci réew yu baree bari mbooloo yu baree bari dañuy gis ne rawat na ndaw ñi dañuy gis ne ñoom ñi leen jiite yor pouvoir bi war a dogal waajaluñ seen bopp sax nag ngir régler seen i fi nekk ni ñu baree bari ñun dañoo gëm ne ñi ñi jiite yor réew mi seen bopp lañ fi nekkal loolu daanaka ko waxtaan loolu da ngay seen bopp lañ fi nekkal kon dañoo gëm ñu bare ba dañuy gëm ne kon ñii nekkuñ fi ngir régler suñuy problème waaye ñoom dañu fay nekk ngir régler seen i ngir régler seen i compte ñoom ak seen i jafe-jafe loolu nag moo tax léeg ñoom dañu am benn benn ñun ñoo dañuy gis ne jëfandikoo xiis nekkatul sax lu ñu mën a layal rek waaye warteef lay doon ngir mën a wañ loxo gaay yooyu ngir ñu mën a jubli ci suñu mbir nag ngir mën koo régler moo tax léeg-léegi violence politique danay sababa foofu naf loolu da mooy amaat ñuy àtte ñi nga xam ñoo yore nguur gi tam ñoo dañuy gis ne gars yi am ñu dëgër bopp ñoo xam ne nii il faut nga terroriser leen tiital leen jëfandikoo force ngir ñoom ñu mën a ñu mën laa nangul ngir nga dox doxal li nga bëgg nga doxal ko moo tax ñoom it léeg-léeg dañuy jàpp ne li ñuy tuddee xupp ak xëpp dañ koy jëfandikoo mooy léeg-léeg dañ la xëpp waaye boo nanguwul ñu xupp la xupp boobu nag mooy violence bi ñuy jëfandikoo sa kaw ngir mën a wañ sa loxo yow tam ngir nga jaar fi ñu bëgg ñu jaar kon mbir mi jokkalante la ñi ñu jiite dañoo jàpp ne gars yi waajaluñ ngir seen bopp ngir régler suñuy jafe-jafe kon war noo mën a jëfandikoo doole jooju ngir wañ seen loxo ngir ñu def liñ bëgg ñoom it ñu jàpp ne am nañu dëgër bopp ñu ci suñu biir ñu ne suñu biir ñoo xam ne il faut nga doole ngir wañ seen loxo ngir ñu def dëppoog li yoon tëral kon mu gis ne kon sabab la boo xam da nga koy xool fii di ko gis xool ko fële di ko gis kon buñ ko bëggoon a tënk am na ay sabab yu bare bare yoo xam mën nañ koo tudd ci misaal ci lii indi violence politique ci biiru askan bokk na ca yooya bi ñu njëkk a tudd mooy am na ay politiciens yoo xam ne ay profiteurs lañ leen di tuddee mooy nit koo xam ne nii xew-xew bu man di xew moom day fexe rek nu mu ca jaare ba régler ay mbiram. am na koo xam tey bu gisoon fii tey mbooloo mu taxalu di ñaxtu wax leen naqari moom la muy njëkk xalaat nu may mën a exploiter mbooloo moomu ba mën cee réaliser samay mbir moo tax politiciens yu baree bari gi maanaam leader politique yu bëree bëri danay jëfandikoo fuul fuul mooy mbooloo moom dañuy jékki-jékki génnandoo rek ak ndiiraan li ñuy wax ndiiraan dañuy jeg te géndoo rek jiitoo di yooxaloo di maanaam lu ñu romb yàq ko am na nitu politique yoo xam ne nii mbooloo moom rek lañ soxla dañu daal di rax ca biir daal di débrouiller mbooloo mi ngir mën cee régler seeni compte ñooñu nag ay profiteur la ñu tudde mooy nit koo xam ne nii day xaar ba mbir mi jaxasoo daal di rëbb ci ndox mu nëx moom la ñuy def dañuy fexe ba mbir mi jaxasoo bi mbir mi jaxasoo nag ñoom ñu fexe nañ ci régler seeni compte loolu politiciens yu bare bare dañ koy def moo tax fuul yu bare bare nga gis buy départ mën naa am sax fa muy teeri ak la ko doon départ loo mën nañoo wuute lool ndax bu départ ay nit dañu daal dugg ci biir ngir jëfandikoo mbooloo moom te ñooñu nag dañoo yomb a jëfandikoo ndax léeg-léeg duñu xam lu leer seen biir kon sabab loolu bokk la ci beneen sabab itam mooy xale yu baree bari amuñu lu ñuy wax conscience politique maanaam amuñu yëg-yëg ci wàllu politique amuñu itam culture politique bu doy ba mën a xam politique mooy lan ak ñi koy def ak la cay lañ ciy dugal ci biir ci bokku ci ñi baree bari xamuñu tax léegi dañuy topp benn leader xam ne nii mu fu leen neex mu xëcc leen jëma leen fa bu leen diree moom ba alam soxla woon faju mu fàtte leen buñ toogee ba mu yàgg beneen waaye ñëwaat ne leen maay jël seen cause maa koy defar nangam ñu topp ca bu dee moom ay mbiram rek la mu taxaw mu bàyyi leen ñeneen ñëw moo tax xale yi daanaka ci loolu lañ dëkk ku ñëw rek jëfandikoo leen daal ba sa mbir rek la wu nga bàyyi leen keneen ñëw jël leen loolu nag la koy waral mooy ne xale yi ñu ci baree bari amuñu yëg-yëg amuñu culture politique boo xam daañu leen mën a xamal lu mel noonu bokk na ci li ñàkk a liggéey góob ci xale yi ak jafe-jafe yi dund gu métti gi loolu dana indi violence politique ndax ñoom ñëpp ñu bari ñoom amuñu liggéey te ñàkk gi ñàkk liggéey dañuy jàpp ne état ba fa nekk moo leen ko teg xëy naa ooma liggéey nguur gi moom war a wutal liggéey lu doon liggéey kon naa yàq li fi nekk dund gi seer na mënu amatuma fu ma jëm naa def violence ngir mën a régler samay mbir kon ñàkk liggéey gu bari gi ci xale yi ak jafe-jafe yu dund yi nga xam day gën di yokk dana tax nit ñi dem bay jëfandikoo violence ci wàllu politique am na bu ci am solo mooy li ñu def vide spirituel maanaam li ñuy wax faraax ruux yi mooy nit ki ñàkk am yëg-yëgu biir li imaam doon waxtaane léegi di dugg foofu mooy bu ñu la raxasee ba nga set ñu sol la li ñuy wax tarbiya ruux ya mooy mooy éducation spirituelle maanaam sa yëg-yëgu biir ñu defal ko jikko yu baax yi ñu def ci yow xale yu baree bari jikko yu baax yooyu dafa nekkul ci seen biir moo tax xale yi dañuy gis xale boo xam ne nii waxambaane boo xam ne kaw gi day rafet lool ndax tàggat nañ ko moom yaram moom lu mu soxla mën na ko am na kàttan am na doole am na sawarte gi waaye nag biir gi dara néew fa kooku nag lu baree bari mën na ko yàq lu baree bari mën na ko yàq ndax nit bu fekkente ne amul lu muy rus amul lu muy bañ amul lu muy jomb kooku lu mu mënta def amul bu fekkente ne am na doole ju ko defee te loolu nag moo am ci waxambaane yu baree bari mooy ne ta maanaam seen yaram baax na lool seen kàttanu physique baax na lool sawar nañ waaye nag jikko yu baax yi war a nekk ñoom dëgg-dëgg des na lu baree bari moo tax bidd boobu am seen biir nag léeg-léegi day feeñ ci wàllum violence politique am na sabab boo xam ne itam dafay delluwaat ci ñi jiite te mooy ne ñàkk gu ñuy ñàkk déglu askan fi la xaqiqa yow bu fekkente ne da ngaa jiite mbooloo war ngay déglu mbooloo mi signal bu mu tuut tuut war ngaa jéem a war nga ko jéem a décortiquer maanaam war nga ko jéem a tas signal boobu jàngal ko lu mu doon ndax bari na yoo xam ay signal foor la yoo xam ne mi ngi am ci biir askan te nit ñi dañ ko bàyyi xel tàkk rek xamal ne am na ay signes yim defoon dañoo koo sàggane ba mu àgg foofu moo tax fetteerlu ci sa gis-gisu bopp donc man sama xalaat la am man dong daal may xalaat keneen du xalaat ñu baree bat suñu njiit yi dañ koy def moo tax sàggane gu ñuy sàggane maanaam yëglu gi ndaw ñu yëglu te duñ ko bàyyi xel loolu dana dem ba jur violence ci biir ndaw ñi te loolu dafa bari ci suñu réew yi loolu lool mooy balaa ñoo balaa ñoo jël matukaay rek yëf daa dem ba jéyee ji am moo tax lu bare ba loolu loolu moom dañ koo tàmm da ngay gis fii maanaam lu ñuy xoolaan lu tuuti lu yàqu ñu mënoon koo defar duñ ko defar dañuy bàyyi ba jéyee ju rëy am ca bu ko defee na ñuy joor a ñëw naan dañoo maanaam docteur boo ñëw daal après nit ki faatu pare nga ñëw di kos maanaam door door jël say matukaay loolu tam dafay am ci biir politique bi kon sababu yooyu yëpp day ñëwaat ci biir day indi biir violence politique xëy na nag am na ci benn benn yoo xam ne nii jàpp nañu buñ ko jëfandikoo mën naa indi ay saafara ci yu mel noonu bi ci jiitu mooy li ñuy wax école du parti parti politique boo gis bu njëkk dañu am école école la ñu am boo xam ne nii dañ ciy former seen i maanaam bu école tëjee ci misaal te ñu dajal militant yëpp defal université maanaam di parti maanaam loolu am jaamee boo xam is wala boog université xeetu jàngukaay la doon dañ ciy former seen i militants militant dañ koy former ci idéologie bi nga yor lan la nooy noo koy tasaaree nooy convaincre nit nooy waxtaan nit ba xëcc ko dugal ko ci parti yëpp dañu koy jàngal nit bu bu violence jotee yëpp dañ la koy jàngal ci biir parti bi loolu nag parti politique bu njëkk dañ ko daan am léegi gis nañu parti yu bëree bëri amatuñ kon ndaw ñi dañ leen a war a wutal parti politique bu nekk dafa war am école di ci former ay militants am xale yi ci politique mooy lan pouvoir mooy lan naka lañ koy amee yooyu yëpp boo amee noo koy deex noo koy doxale boo koy wut noo koy wute booy waxtaan ni waxtaan ak ñoom boo bëgg leen ko bëggee convaincre yëpp ñu leen koy jàngal bañ xam ko loolu ci solution yi bokk mooy kon parti bu nekk war na am école du parti sunu biir bi jàngukaay yi tam jàpp naa ne war nañ ci mën a def ay soññe ak di conscientiser nit ñi ci wàllum politique. Euh, am na réew yoo xam ba doon jàng tey xam ne saxaaf CSE mooy culture politique ci ci biir bi ngay jàng lay bokk. du yëpp waaye am na benn benn réew xam ne ni day am culture politique ci biir njàng mi nga xam dañ lay jàngal idéologie yëpp dañ lay jàngal dañ la koy jàngal ba nga xam ko jàngalaat jeu politique yi nga xam moo am ci biir yëf yëpp nga xam da nga koy xam bu baax da ngay yeewu yeewu goo xam ne nii yu baree bari dootu la mën a xëcc. yu bari bari bi ñu koy def danga koy xam mu leer nañ sa bopp. am na ci bu am solo boo xam dañ koy sàggane rek léegi itam mooy li ñuy wax compétence d'écoute maanaam muus teg déglu dañ jàpp ne déglu dafa yomb waaye déglu moo gën a jafe fuuf wax déglu moo gën a jafe wax ndax déglu moo lay may kiy wax li muy wax nga dégg ko ba noppi ci biir déglu ngay déggu mën koo analyser ba xam la cay njariñ ak la jun njariñ la ma ci war a ak la ma ci war a jël loolu jafe na ci nit ñi fi da nga dégg gis koo xam ne nii day ŋànk ci mbir nga ci dëgër ci lool boo waxee lu muy lay waaye dégg naa ko ci rajo bi dégg naa ko di wax nag wala liir naa ko ci journal sangam mais rajo bi li wax lépp lépp du wérut li ci gannaaw boo ko doon xool li ci genn wàll gi wérul gars li ñuy bind genn gi wérul lu baree bari ay propagande la yoo xam ne doo ko mën a xàmme loolu nag dañ ciy tàggat nit naka ngay dégloo discours ñu tàggat la ci booy liir dara naka koy liire booy seetaan dara naka nga koy seetaane naka ngay xàmmee ki lay propagande ak ki lay woo dañoo dañoo jegee te wuute lool dax ak dixaaye dañoo jegee te wuute lool mooy ki nga xam ne nii day woote jëmee ci lu baax ak ki nga xam dafay propagande ñun ñi sax lu bare bare léegi ci bu ñuy wootee léegi ci diine yëpp dañ koo soppi propagande ndax dañu dul xamee léeg-léeg moo tax nag buñ xamalee nit ki nag compétence boobu ñu yee ko ci moom def ko ci moom moom lépp lu muy déglu lépp lu muy seetaan lépp lu muy liir dana xam nu mu cay xàmmee la cay propagande ak la cay woote bu baax rawat nag jamonoy internet bi nga xam moom saa yu ñu xëyee posté ji nangami junni vidéo nangami junni audio xale yi di ko dégg te mënuñoo ràññee la cay dëgg ak la ca dëgg bu ko defee dañu jàpp ne lu ñu ca dégg rek dañ ko war a jëfe loolu defe naa ne liggéey la bu mag boo xam ne nii war nañ cee gën a tàggat xale yi waaye tam nag fexe ba ñàkk liggéey gi wàññi ko ñu ndaw ñi jafe-jafe yi dund itam ñu fexe ba luñ ci mën a saafara ñu saafara àddina moo ko jafe-jafe moo ànd waaye nag war nañ cee def bay waar ba ñëpp xam ne am nañ ci taxawaay waaye bu ñëpp bokkee di seetaan rek xale amuñu liggéey bu ñu xëyee dañuy taxawaal ba ngoon jot ñu wala yu mel noonu wala dund gi jafe na cher na te daanaka mënuñ koo fajtal te gisuñ kenn ku ciy waxtaan ak ñoom gisuñ kenn ku ciy dox jéego yoo xam jàpp nañu bëgg na koo régler loolu mën naa andi musiba ci am réew kon loolu gàtt gàtt ñi ciy yëngatu bañ xam ne am nañ yéene ji donte mënuñoo saafara lépp loolu tam mbokk na ci solution yi bi ci ëpp solo nag mooy yar leen ci wàllu diine yarub diine bu mucc ayib nag la ñuy ndax yarub diine diine dañuy wax ne bokk na ci force yi ëpp doole ngir defar askan waaye itam force yi gën a mën a yàqu askan mooy diine diine bu buñ ko buñ ko jàngalu ni ñu ko war a jàngalee li gën a mën a tas askan violence li gën mën jur mooy diine tey boo xoolee li ëpp ci violence bi ñuy jëfandikoo ci àddina bi ci turu diine lañ koy def la am Mali am Burkina Faso am Soudan am Libye am feneen am am Liban daanaka am fu bari boo demee Yaman dëkk yu bëree bari boo demee Inde coow la fa violence ba fa am ñëpp li ci ëpp boo demee Afghanistan booy xool diine ji ñu ci yoon moo jur lu mel noonu moo tax diine ji il faut ñu jàngal ko nit ñi foo jàngal dugal ko ci école yi dugal ko ci daara yi waaye di ko jàngale ci façon boo xam ne nii dana nekk njàngale mu leer naññ te mucc ayib bu dul loolu rek profiteurs yi ñoom dañu ñëw exploité ndax yëgeegu diine dafa am doole ci nit rawat na xale yi xale pas-pas day am doole ci moom moo tax fi nekk nii nga dévier ko ba mën nga am na jëflante moom rek ci wàllu diine da nga koy dévier ba def loo ko li nga bëgg mu def fi mu xale yi nga gis ñu leen takkloo ay bomb takkalool sént boo xam da ngay dugg ci jàkka wala nga dugg ci biir mbooloo exposé sa bopp faatu ca rayaale mbooloo mu du jeex loolu ci turu diine lañ koy jaar ba def ko ci ñoom am na xale yoo xam ne mu leen tàggat am na mbooloo yi diine yoo xam ne nii ñu téyee xale yi li ñuy njëkk a def ci ñoom mooy fexe ba rey nit dootu doon dara ci ñoom léeg-léeg gis vidéo yi circulé yoo xam ne benn benn nit yi ñuy yëngatu ci diine ñi wax ne diine la ñuy tuddoo dañuy jël benn xale bu ndaw jox ko jaasi teg nit takk bopp bi na ko daggal mu dagg mu dóor jaasi ci bopp bi del fële bu ko defee defar ko moom rey nit dootu doon ci dara ci moom noonu lañ leen di tàggat nag di leen tàggat di leen tàggat ba mu ñoom dañuy mujj nekk daanaka comme ni nga yore sa télécommande di commandé ki moom ngay moom noonu ngay jëfandikoo ak ñoom kon loolu diine ji dañ cee war a jàngataat bu baax eh, gën nga seet nun ci nun koy jàngale xale yi ba ñi nga xam ne ni dañuy profité ci mbir yi duñ ci mën a profité ngir jëfandikoo yëg-yëgu xale yooyu xëy na waxtu moo ñu dab waaye kon dañuy wàcc suñu kàddu rek ci tuur ci sëriñ bi radiyallaahu anhu moom ñi mu jàmmaarloog violence politique ndax ku nekk xam nañ tubaab yi violence politique lañ doon jëfandikoo ci kaw sëñ bi moo tax fan at ñett yoo xam da ko def ci ay loxoom seeni loxo ñu teg ko xeetu méthode bi ñuy teg doomu aadama ñu teg ko ko te moo ne moom mësta jëfandikoo violence ngir tontu leen kon lam la waxoon ne man xam ak defar nit ki ci jihaade loola moom lañu war a delloosi kon képp koo xam ne daal yaa ngi milité ngir sa dignité population ngir jëmale saw xeet kanam jàppal ne ba yit sëñ boobu ci la nga war ngoñ mooy kon njàng mi ak yar bu baax ni ko saa waxee woon léegi waaye itam jëmbat ci xale yi melokaan yu baax waaye tam jëmbat ci xale yi nangoo nekk jaam te duñ nangoo nekk jaamu kenn ku dul yàlla waaye itam jëmbat ci xale yëg-yëgu ngay servir te doo am doo laaj intérêt ba cay maanaam doo ci laaj dara yooyu mooy yi nga xam ne nii ci lañ mën a yar nit ñi ba mbirum violence gën a wàññi ko waaye nit ñëpp nañ bokk jàpp ci ne violence moom du jur lu dul anarchie bu mat sëkk kenn mënta avance itam ci kaw violence kon violence violence rek lay jur mënta jur leneen.